parce que nag am na lu ñu wax ni mën naa ko ci aéroport mais monsieur le ministre da nekkoon sa ministre jàpp na ma bu la neexoon nag nga indi coono goo xam ni liggéey ba du ci bon jàpp na nga ma ma bëgg sa sa xel dal borom Dakar ngay dëgg ma ko may parce que mosuma xalaat sama bopp président laa doon xalaat mu amee ndam moo tax man la am na ñoo xam ne nekk nañu yoof meroon man leen ah ñaar di am na mhm. ku may bañ danga may bàyyi bàyyi mos du saar ku may jàpp-jàpp man du saar ku may bàyyi bàyyi te ñoo ñëpp dama ne la dinaa takk ci benn buum mhm. ñu ne fukk yi nga gis yëpp noonu leen fa tax waaye léegi ñu ngi solo nit moom doo ko utal noonu day am nooy def waaye dafa am loo xam ne yaa ko may moo tax bu ko toogee ni Amadou Kati Diop mosul voté pour le parti au pouvoir mhm. ñëpp xam nañu presse la bokkoon di xeex ya? mais tey am na ci loo xam dina ko def ànd ak Mbaye Cissé ndax 40 ans du ñaar du bon ni Abbas Ndoye wax ci nekk mhm. ñi may àndal sama ay xarit noonu mhm. ñi may àndal ñoo xam ne da jox ma ci kenn mille ba deux mille mhm. bu la neexoon nga ma samedi fesal ma grand théâtre boo ko soxlaa boo ko soxlaa ma dafa samedi waaye li ma bëgg nag nga xam ko tey wolof nee na ku la matul naaw la mataloo noonu ñii waxtaan daan soxla Dakar doo ñoom du nu ah, bu leen tontu bul wax ca ñoom te bu soobee yàlla bu nu yeggee ca làmb ja ba ñu ne yaa yow na naan maire de Dakar dinañu jaral nag lu ne ci loo foog ak loo foogul dëgg la parce que nag am na loo xam ni uh-huh. duñ ko nangu ndax bis bu ne nga dégg ñu tàgge mm-hmm. waaye déggoo ku sant jaa suñu tàgge mm-hmm. répété ko répété ko waxaat wax dañu wax maire Dakar. waaw ndax Diouf Sarr mën la bis bu nekk nga dégg ñu tàgge. waaye dégg goo sant Dia ku du tàgge. bon nag am na loo xam ne ñun ñoo ko dul nangu. yow boo toogoon sax ni bàyyi naa. dinañu fexe bis bu ne parce que maire bi yaa ko war a jël te ma am nag lu ma bëgg dafa am ay législative li naan dóor dóoraat c'est-à-dire dafa am consolidation des acquis xam ni le ministre day gañuwaat législative ni président man di laal ma te lu mu la jaral jaral nañu ko xam ni jabaru Ali Gueye naa ko. ndeysaan waaw sama nijaay. partenaires yi ñëpp xamoon man maa tax mu jàpp président. Mame Mbaye Niang soxnaam. dama ne la sànq Sacré Cœur am na ci loo xam ne ña ngi koy liggéey te duñ ko wax. am loo xam ne ñu koy liggéey liberté te duñ ko wax. parce que ndam na lu bëgg ndam gu lew. bu sedd waaw la ma Mame Mbaye Niang mënal. te bokk opposition man maa tax ba contre tout pouvoir euh, président. Mm-hmm. loolu nag jëfa koy maye. du wax. Mm-hmm. li may wax nag ni man ay nawle laay àndal mm-hmm. ñi ma nekkal gënuma leen mm-hmm. parce que ko ko xam ne xamoo ndax di nga yeewu baa doo yeewu mm-hmm. joxo nit ñi cër li ci nekk nag mooy man dinaa def appel ni képp kuy sa mbokk taal bi murid ci Ndakaaru naa la lu ngeen ma defal defal ko Diouf Sarr dina ko def fi ma ko war a ko wax mun ko def naa ko li ma président denk joxan la ko lépp loo si man yow yàgg say xarit ñoom Abbas et autres taxaw si pour qu'au soir du 22, 23 janvier 2022, ñu mën a jël Ndakaaru delloo ko président de la République pour que Dakarou, mel na mu parce que wax dëgg yàlla gars Y dañ ko yàq quoi mm-hmm. dañoo Dakar mm-hmm. mais il est temps que Dakar que la véritable ville capitale du Sénégal Inshallah. loolu mën nañ ko Inshallah, allah maag yow ñoo koy ànd si bi pour jël ko buñ ko àndee si xeex bi ba ñu jël ko ba pare ñoo koy ànd si yorin bi parce que loolu moo am solo maa ngi yow nag danaa def te gëm naa ne loolu moo nekk si yow loolu moo nekk si man lan moo nekk si ñun ñaar yaakaar naa ne Sénégal kenn du yëkk loxo ne ñaar ñi waruñu ànd wala ñaar ñi gëmuñu dara wala ñaar ñi et cetera. Mm. maag moom am nañu valeur yu ñu partagé mm-hmm. bon nag def maag moom wet gore wetu lëpp gore incha dimanche dama am benn meeting à Yoff mm-hmm. may wax ne jël na meeting bi tudde la ko yow yow yaa la seul parrain bi ah, ah. wax naa fii wax naa fii wax naa fii donc Abbas bi ma dalee politique ba léegi sama gaa yaa ngi nii mosuma meeting Yoff wutal ko guma ko tudde man maay meeting Yoff porté ko ñëw wax ak waa Yoff mais cette fois maa ngi yëgal Dakar yëgal Sénégal ne meeting bi ma woote dimanche waa Yoff war ma fekki ma wax ñoom tudd naa ko sama rak sama doom ndey doo xamante ne kenn ku daan tàmm. donc maa ngi la ko wax kàddu boo ñëwee wax ak

bu leen déggee bañ juddoo ba léegi fitna rek la leen dégg bon nag ñu taxaw jël Dakar jox ko ñoo xamante ne dañ ko yor si dal pour servir effectivement les dakaar waa loolu message bu am solo moo bëggoon joxe la bon Pape maa ngi lay remercier maa ngi lay remercier bu baax a baax tey day tey à partir d'aujourd'hui gëm naa ne amelatoo ma dara man maa la amee danaa jéem effectivement chaque fois di la fay li xamante ne lebal nga ma ko tey bon nag maa ngi lay jox rendez-vous dimanche incha allah ayof parce que jël naa meeting boobu tudde la ko parce que xam naa ne yow mérité nga effectivement à ce que ma si yow gëm naa ne mu wéeru si yow dama mbas mukk maa lay remercier bu baax si